war ngeen a jàng aaya yi ba mën leen a tari waaye Pierre ak ndaw ya tontu leen ne déggal yàlla moo gën déggal nit yàlla sunuy maam dekkal na yeesu mi ngeen boomoon ci wekk ko ca bant ba te yàlla yëkkati ne ko ci ndeyjooram mu nekk buur ak musalkat beneen yoon dinañ waxtaan ci mbirum ñiy toppatoo yëfi mbooloo mi